L'histoire, l'histoire se euh, à nouveau. Le Ghana perd au tir au but devant la Côte d'Ivoire après 1994. Désormais, donc à Bata, en Guinée équatoriale, 23 à, euh, 1992, Donc euh, la Côte d'Ivoire renoue avec euh, la deuxième fois que les éléphants gagnent donc ce trophée continental, avec un capitaine qui s'appelle Yaya Touré, un frère des Ayou chaudes larmes, notamment André Ayou. On comprend bien sûr la déception. Les tirs au but ont départagé les deux équipes. Au final, 9 tirs à 8. Et pourtant, coach Amara, le Ghana avait bien entamé cette série. La Côte d'Ivoire, un peu moins bien. Oui, on a senti une équipe qui a, qui a eu de l'expérience par rapport au tir, Vous savez, en football en général, il y, a des matchs, il y a des moments où la, surprise est là. Mais quand on regarde le football, quand même, des fois, il y a une logique qui, la logique qui se, qui, qui répète. Mhm. Parce que quand même, si on regarde ces dernières années, la Côte d'Ivoire a, fait trois finales et perdu en, en, en, en comment ça s'appelle, au penalty. Donc la quatrième, donc à mon avis, ils ont, pas dire qu'ils ont tiré temps, mais quand même, ça les a un peu aidés à mieux apprendre euh, maintenant cette, euh, comment s'appelle, cette épreuve, maintenant pour bien gérer cette, euh, comment s'appelle, cette, euh, cette, cette but. Mais quand on voit le, le, Ghana qui a eu deux penalties d'avance et que euh, maintenant euh, a, a raté et perd cette, comment s'appelle, cette épreuve, ça veut dire qu'ils ont, ils ont manqué de, ils ont pas eu les nerfs, ils ont manqué mmh. d'expérience, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, vraiment manqué de, de, de, de d'expérience. Tout à fait. Alors, Momodou, Euh, fin bi vraiment il beaucoup de tension beaucoup d'émotion évidemment avec le héros maintenant xam naa ni Kopa Bari lay tudd. mais Kopa Bari daanoom yu métti yooyu crampe yi tout loolu da doon naxaate quand man je pense que loolu c'est juste pour teg pression parce que aussi euh, ku nekk da ngay am say fem aussi parce que boo benn moment même euh, bi ayu di tiré jéem na ko tiital pour. Mhm. pour wan ko ne ko doo dugal ak yooyu. Mhm. heureusement ti parce que mu wan ko carrément ko ne ko damay ñëw dugal man je pense que daanu yéex effet yi ñu doon def des c'est des cinémas yoo xam ne pour euh, tiital pour tiital jour yi parce que tamit yombul aussi parce que aussi comme ni nga ko final coupe d'Afrique nga am mm. penalty peuple bi yëpp yaakaar si yow aussi benn d'abord yi am na pression buy am si yow donc pression boobu la doon yokk. très bien merci vous pouvez nous appeler bien sûr pour réagir en direct nan dundee final bi ku ngeen faraloon am na ñu faraloon Ghana am ñu faral Côte d'Ivoire d'ailleurs fii on avait fait des Euh, final bi nag ni mu jeexee gis nañ ko euh, Côte d'Ivoire c'est vrai que ñu bëri nee nañ Côte d'Ivoire en fait en fait enfin ñu gagné ko parce que voilà avec tout ce qu'ils ont vécu et tout mais bu ma gisee c'est vrai que Cheikh Tidiane laa doon tooñ mais bi ma gisee jooyu André Ayew yi li mu joxe ci tournoi vraiment sama xol tooy na bëgg c'est difficile. je que man euh, c'est l'image que bu may retenir ci Coupe d'Afrique bi. Mm. jooyu André Ayew parce que ça fait de la p Euh, gis jour bi mel ni moom euh, tey lii daal xamu parce que xam naa ni xelam dafa sori. Mm-hmm. xam naa xalaat na ni papam 92 euh, fii Sénégal tey ren encore mu dal leen ñoom tamit encore donc xam naa ni loolu moo tax parce que si dana koy gis il pleurait à chaudes larmes. Mm-hmm. nga xam ni que affaire bi métti na ko trop. sa ça ça montre ça montre que moom nu muy joué si biir terrain bi nu muy joxe wu di di il va à fond loolu moo moo moo moo moo feeñ tey jii nii ba match bi jeexee. su ne senti ni que c'est un c'est un homme boo xam c'est quoi. un homme boo xam ne que du denc dara si biiram day dem ba jeex. donc man image boobu lay nii tey jii nii ku xool xool euh, ambiance su côté Côte Ivoirien yi dina xam ne que football rek moo mën defee def. Ah, ah, ah. gis benn côté bi ñii di am naq ñeneen ñi am am bànneex mais football rek mais tey jii nii je pense que euh, remake Sénégal 92 dañu vivre euh, si physionomie match bi euh, on a un peu entendu Tassirou mais là aussi bëgg na naa euh, coach joxe xalaatam maanaam si configuration bi ak match bi ni mu demee en fait c' un match li ñu doon wax donc avant c' un match très tactique. Oui, d'abord, permettez-moi de, d'abord de, de féliciter la, la d'Ivoire et tous les Ivoiriens, mhm. et aussi de féliciter Hervé euh, donc vraiment qui a, fait du beau travail en Côte d'Ivoire, parce que quand même, c'est l'un de qui a pu gagner euh, deux Coupes d'Afrique le mmh. premier à deux pays différents donc mmh. ça veut mm-hmm. dire un travail qui est fait qu'il maîtrise vraiment l'Afrique et puis vraiment toute la population guinéenne euh, comment ça s'appelle euh, bon ivoirienne pas guinéenne parce que j'aime bien la Guinée <laughs> je les salue de passage les Guinéens et puis en même temps avoir une pensée pour Drogba et maintenant pour revenir à ce match c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était un match vraiment Il euh, n'y a aucune équipe ne voulait hasarder son match. Un match mm. intelligent, très tactique, mais d'un niveau technique pas, pas élevé parce qu'il y a eu beaucoup de passes ratées, il n'y a eu des enchaînements de passes euh, parce que quand même les équipes étaient bien en place, euh, vraiment bien structurées en respectant les, les, les vraiment les, les comment consignes des, des entraîneurs. Mm-hmm. même si on a vu un, début de, un, un, début de match maîtrisé par les Ivoiriens, mais qui s'est équilibré. et en deuxième mi-temps, ça s'est renversé avec maintenant euh, une domination euh, euh, ghanéenne. Mais c'est des dominations qui ne sont pas traduites en, en, en, en, but. Quoi. Donc vraiment, ça, ça, ça, ça traduit tout ce, tout ce qu'on prédisait ici. Donc euh, maintenant, c'est... Euh, mais euh, une finale, c'est comme ça. Hein. Les, les, c'est deux équipes qui ont perdu beaucoup de finales et voulaient, ils ne voulaient pas hasarder leur match. Quoi. Ils, les, voilà, c'est ça. <laughs> Alors, si justement, taxawaayu ñaari équipe yi c'est vrai que finale bi à la limite euh, quand on connaît le résultat mm. les consignes tactiques et techniques euh, on n'aime pas trop <laughs> s'attarder dessus parce que <laughs> les gens ils s'intéressent qu'à la victoire mais quand même euh, seen jàngat ci ñaari équipe yi parce que man dama foogoon ni que sincèrement bala ñuy dugg ci match bi Côte d'Ivoire moo ëpp atu moo nar a dominer match bi et on s'est rendu compte au fil du match que ce n'était pas du tout le cas Ghana indi na taxawaay bu baax à part peut-être les 15 premières minutes ils ont Cheikh Sidi. Ah, mooy comme lu ma doon wax sànq rek avant avant avant match bi nee naa c'était du 50-50 donc chaque équipe avait avait avait ses forces euh, dañ dem ba si ñëw ba si biir match c'était kenn bëggu woon euh, saraxe match bi kenn bugg woon euh, perdre si ay bi ay ay ay erreur individuelle wala erreur tactique donc équipe bi dañ ñëw am présence tactique bu baax ñu taxaw ku nekk jàng sa kii te xool soo xool si biir match bi y avait beaucoup de duels man to Mmh. soo xoolee sur le côté droit ivoirien dañuy xool Aurier ak euh, Ayew na xool euh, kii. Tiéné Tiéné Tiéné ak euh, Atsu na xool dans l'axe central. kii le jeune qui joue en Espagne. Euh, Bailly. wala Kano Bailly Bailly Bailly Bailly. Mmh. qui suivait constamment. Diane Diane. da mmh. nga xam ni que y avait beaucoup de duels main Euh, Yaya Touré aussi on en a parlé c'est développer son jeu. Gervinho aussi voilà Gervinho aussi il était suivi par Afoul. Mhm. donc euh, tu sentais que nettement que y avait des consignes et que joueurs yi il faisait il respectait les consignes à 100 pour cent. Mhm. donc loolu moo ne tax loolu moo tax ni que pendant les 120 minutes du saut que. pratiquement amul occasion de but franche. Mhm. à partir sur la barre c'était un tir de loin. Mhm. donc euh, ils ont respecté le consigne à fond joué joué match bi à fond pendant les cent vingt minutes et que ça s'est départagé mhm. au tir au but. mais sentir que vraiment tey jii nii les équipes africaines ils progressent sur le plan tactique et que euh, pratiquement les joueurs les joueurs qui sont qui sont dans les championnats européens ils commencent à assimiler ces ces tactiques. et que ça c'est un plus pour le football africain. très bien alors Mamadou euh, justement par exemple pour le Ghana est-ce que gënul woon ku mel ni Diane nga xam ne il revient de blessure ñu teg ko si banc bi pour comme joker parce que j'ai l'impression que sur le match il n'a pas apporté tant que ça alors que ku mel ni Ayou Jordan ak euh, Kwesi Appiah ak beneen André bi ils commencent à trouver quand même leur, repère mais bien sûr parce que boo xoolee tey. Euh, doxul bi mu waroon doxee mais aussi tamit euh, il faut nga comprendre parce am na yoo xam ne toujours dañuy am seen jour préféré boo déggee jour préféré parce que tey mooy mun nañu wax ne mooy vedetu équipe bi donc boo ñëwee final benn match la donc tu es obligé nga jël yenn risques yi munoo jël ko teg ko si banc bi que situation bi ni mu demee yooyu donc il fallait mu jël risque aussi tamit quoi. Mm. donc boo xoolee loolu handicapé na un peu Ghanéens aussi tamit parce que boo xoolee euh, rakku ayu bi bi mu duggee aussi tu que ne. Mm. dafa indi beneen différence. boo xam ne il moo gënoon mobile et même boo xoolee aussi y avait trop de perte de balle. Mhm. parce que perte de balle yi dafa bari ba nga xam ne c'est-à-dire yi dañu concentré woon ba nga xam ne. donc ku ne buggul woon ku ne buggul woon yàq aussi uh-huh. dafa doon dañ doon yàq cest à dañ doon ay passes yuy manqué. des fois nga daw donc du côté ghanéen je trouvais euh, surtout dans le dernier tiers c'était même même les Ivoiriens même les Ivoiriens même Ivoiriens yi. Mhm. boo ko parce que Yaya Touré des parcours am peut être boo xam ne dernière minute la am accélération beex yooyu yëpp. Mm-hmm. aussi tamit man li ma si gën a retenir aussi lu ñuy fàtte arbitre bi aussi c'est un arbitre qui extraordinaire. parce que arbitre bi dafa maîtriser match bi. complètement d'ailleurs j'allais en parler le match l'arbitre finalement est ce que duñu wax coach que l'homme du match c'est Gassama l'arbitre. non très sincèrement quand je regarde le match au bout de vers la deuxième temps Vraiment, je, je, je, je m'étais dit que l'arbitre, c'est l'homme de match, c'est l'arbitre. Parce que quand même, euh, souvent, ils sont décriés. Mais très sincèrement, aujourd'hui, euh, on est fiers d'être euh, Gambien, on est fiers d'être Sénégalais, mmh. parce, parce qu'ils étaient mm-hmm. Mais vraiment, euh, le par cet arbitre-là. Et mmh. puis la Gambie aussi a été bien représentée par cet arbitre-là, parce que quand même, souvent, c'est quand... j'ai vécu en France. Souvent, quand on a ce genre de match-là en Gambie, de suite, on, oui. mais chapeau à l'arbitre oui. et chapeau à l'arbitrage africain. Mmh. Aujourd'hui, oui. ils ont montré que l'arbitrage africain est digne. Et puis moi, je pense que si, si les arbitres continuent de faire ce genre de match-là, oui. un jour, ils vont arbitrer une finale de Coupe du Monde. Alors, moi, j'ai envie quand même de parler. Xam nga sànq ñu ngi doon wax les belles histoires de cette Coupe d'Afrique. tey amati nañ beneen belle histoire mooy histoire Copa Barry <laughs> parce que il a joué wul benn match ci compétition bi. tey moom moo euh, arrêté biu euh, Razak bi euh, et puis mu dugal but pour permettre à la Côte d'Ivoire euh, mu gagner déjà sur le plan du jeu est-ce que il vous a convaincu est-ce que il était bon mais bon j'imagine que lii la ñëpp nar a retenir en fait. non mais sur le plan du jeu on peut pas le juger parce que pratiquement tey il y a pas eu d'occasion franche boo xam ne moom war na mën a mën a montrer talent. Mm-hmm. mais il a été il a été présent au moment opportun. Donc, euh, je l'avais dit avant, avant, avant que ça pourrait être le match de sa vie. Et il a montré. Arrivé au penalty, le Côte d'Ivoire était mené 2 à 0 par, l'équipe du Ghana. Mm. Il a su revenir, il a su puiser au, sein, au, au, au fond de lui-même pour euh, ramener le Côte d'Ivoire euh, dans la course et il a arrêté le dernier le penalty du gardien de, du gardien ghanéen pour marquer le le penalty qui consacre la Côte d'Ivoire euh, championne d'Afrique. Mmh. Je pense qu'il faudrait lui, il faudra lui, lui, lui tirer un, un, un grand chapeau parce que c'était pas évident que n'a pas joué un seul match tournoi à Biop et que à la dernière minute on le, on le titularise pour une finale de Coupe d'Afrique mm. et que peut-être c'est par son expérience moo aidé parce que si ça aurait été un un un, un jeune joueur peut-être que mu jaar à côté à mais moom avec son expérience partout où il est passé il est il est professionnel en Europe. Mm -hmm. et il a joué il a joué plusieurs CAN donc c'est expérience ba moo tax ni que il n'a pas flanché et que il a pu arrêter le dernier tir ghanéen pour inscrire le, le le tir victorieux. alors ñoo xamante ni mos nañu jouer yéen ñëpp mos ngeen jouer ci terrain quelque part quand même mën nañu ne football aussi dafa am part de chance quoi parce que lii moom c'est loolu rek lañ ko mun tuddee part de chance. non non non euh, d'abord pour revenir sa prestation sur le match quand même il a il a fait une faute de pied hein, qui a failli coûter cher à, la Côte d'Ivoire c'est en, en deuxième mi-temps hein, quand il euh, pense son mhm. dégagement sur euh, Apia mais tu sais euh, chaque homme a son destin et c'était écrit que ce garçon-là il allait jouer tout ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, quelque part, euh, bon, il y, y, y, a un facteur de chance qui est là, mais quelque part, il y a une récompense. Il y a une récompense. Quand on est joueur de foot, euh, quand on est à la fin de sa carrière, et quand on a été sérieux, quand on a été, quand on a servi, parce qu'il a, il a servi beaucoup de, beaucoup de choses à, à, à, à la Côte d'Ivoire. Uh -huh. Il a été là au moment, il a été décrié, hein, il a été, mais il a, il a, il a été toujours présent. Et que, bon, maintenant, par les choix de l'entraîneur, l'ont euh, amené sur le banc, mais c'est pas par, par, parce qu'il n'a pas démérité. Mmh. Maintenant, euh, ça, ça c'est une récompense. Et puis maintenant, moi je pense aussi, euh, les joueurs africains euh, doivent prendre exemple sur, par exemple, sur ce garçon-là. Parce que c'est un garçon que j'ai vu pendant tous ces matchs-là. il a, il a, il a, il a, il a, il était sur, titulaire. C'est ça. Remplaçant. C'est ça. Mais il a soutenu son équipe. C'est Il haranguait tout le monde. On n'a pas entendu pleurer, dire que je dois jouer, Mais après, quelque ouais. il est, récompensé. Ça, un exemple aussi pour tous les, pour tous les joueurs africains. Parce qu'une c'est, une sélection, c'est quoi? Une sélection, c'est prendre des titulaires pour en faire des remplaçants. Mm -hmm. Donc, après, maintenant, c'est, ah, tout ça, c'est, après, à la fin, le, le, Dieu te récompense, hein, voilà. <laughs> justement foofu lay taxaw mooy récompense bi c'est-à-dire euh, gis nañu deux exemple muy peut-être deux extrêmes dañu gis joueur bu am jom bu mhm. André Ayou di jooy bay dee parce que dañ ko voilà il a pas gagné. Mhm. et puis ñu gis aussi joueur boo xamante ni comme disait coach. Mhm. dafa nangu statut remplaçant bi ñu ko dugalee aussi mu lekk léegi la héros loolu est-ce que ñun tamit tey au niveau de notre équipe wala des joueurs mentalité bi ñu war a am est-ce que ñun loolu warul waruñu ci jàng aussi parce que jàngat yu bëri am na ci final bi mais tu sais que ax ah, looy munti def da sa war a gis sa bopp saa dañ gis sa bopp dafa am loo si war a jàng parce que aussi tamit euh, Kapa Bari nañ waxante dëgg parce que boo xoolee équipe bu Côte d'Ivoire bi moom moo fa mos a titulaire pendant des années mm-hmm. donc mënul jël coupe tey gis nañ ne tournoi bi Ivoiriens yi indi nañ gardien boo xam ne gardien bu baax la moo ko gënoon mais moom aussi tamit def na li mu war a def mooy l'essentiel xam nga àdduna dafa am loo xam ne mooy l'essentiel mooy sa history li ko anglais daan history mooy ñu bind sa book si bug bi ñu mën la fa bind bindane def nga mm, lii te loolu ñu bindal ko moom d'abord daf ko mérité parce que mérité bi mooy par rapport ak parcours bi mu jaar yëpp tey ku mel ni Drogba tey bu doon sagoom bugg na fa nekk comme li Kopa bari am mm-hmm. donc ça veut ne loolu mooy wan ne liñ la naan olof naan xawma loo kii baag dina la fa fekk mooy àdduna nit day patient mm-hmm. xaar doon naa footballeur comme Carlos Valderrama un jour mos na ma wax moom ne Mamadou mu ne ma ma ne ko lu tax mu ne parce que mun nga nekk un bon joueur te doo am chance parce que mun ngay am ay blessure tout le temps mun ngay am ay problème mais boo nekkee joueur boo xam moyen te am chance mun nga àgg fi nga jëm. Mm. des fois aussi très bien alors euh, loolu yëpp euh, am na solo on va quand même euh, rebondir si euh, li coach waxoon maanaam euh, aussi l'arbitrage dans cette CAN puisque nous avons eu à rencontrer un monsieur qui s'appelle Ousmane Fall qui est arbitre international donc euh, et qui parle donc d'une hein, des arbitres de manière générale euh, sur cette compétition. Avant bien sûr d'avoir l'avis des uns et des autres, je vous propose d'écouter Ousmane Fall. C'est dur C'est dur mais c'est euh... est malheureusement. Ce qui est arrivé à Sichon m'est arrivé personnellement à moi. dans les mêmes conditions, un match de quart de finale, au de la Chane. Euh, au Soudan, entre l'Algérie et euh, l'Afrique du Sud. Évidemment, aussitôt après, j'ai été reçu par mes, mes dirigeants qui ont fait un débriefing avec moi et m'ont préparé pour un retour au Bercail. Sur les rankings, il est est inscrit sous le nom de Néant Alioum. Alors il faut savoir quand même que c'est la FIFA qui connaissait son nom. Donc ils ont mis Alioum, mais pas son prénom. Donc forcément, ils n'ont rien mis, ça s'est en Néant. Du coup, tout le monde l'appelle Néant Alioum. C'est Sidi Alioum qu'il s'appelle, <laughs> Camerounette. est la CAF qui cette question que je me pose. Vous savez, en matière de communication, c'est la presse, quelques, quelques, des, ce sont peut-être vos, vos, confrères, vos consoeurs, vous. Euh, non, moi je me dis, moi ce que j'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu dans le web. Bon, je n'ai pas encore vu une communication de la CAF qui dit que l'arbitre a été sanctionné. Moi, je ne l'ai pas encore lu, je dis. Ensuite, ce qui m'est sûr et certain, moi, Ousmane, quand ça, ça m'est arrivé, euh, certains disaient il a une suspension de 6 mois, d'autres 8 mois. Mais c'était pas en fait euh, une suspension qui a été notifiée envoyée à la presse. Ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de suspension ou il n'y en a pas. Moi, je dis en fait la manière dont les gens se relaient l'information, ça ne se passe pas comme ça au niveau des grandes instances. La FIFA et de la CAF. La FIFA et la CAF ne traitent pas comme ça ses officiels. Les officiels de la FIFA et de la CAF sont de très grands messieurs. Je le redis encore. Maintenant, dans moderne, vous ne voyez pas quelqu'un qui n'a pas au minimum 10 ans ou 15 d'expérience. Quelqu'un qui a un bon background, qui a une bonne qualification professionnelle. Donc il y a une manière de traiter ce monsieur. C'est pas comme ça. Monsieur est suspendu comme ça. Euh, non, je ne pense pas. Donc Oui, parce que je l'ai vécu. Et je sais que ça ne se passe pas comme ça. Certes, il y aura peut-être après un débriefing, certes peut-être qu'on va parler à l'arbitre, certes on va, on va lui demander son point de vue, eh, mais il sera traité même, je ne dis pas comme un roi, mais il sera très bien traité pour qu'il puisse avoir l'esprit une bonne psychologie de revenir rapidement au très haut niveau. Ils ont traverti Moubarak à peine. Averti parce qu'il est venu discuter, il aurait dû se, se replacer tranquillement. Kikeboula qui va vite, mais Wakasu qui, qui met le coude sur l'épaule de, de Et bien vu euh, de sanctionner cette faute. Actuellement en Afrique, nous avons les meilleurs arbitres. Là, j'ose le dire. Très haut, on a les meilleurs arbitres. si vous regardez le classement, euh, peut-être parmi nos, quatre arbitres d'élite, ils sont classés parmi les 10, meilleurs de la CAF. Bon, il y a quatre qui devaient partir, trois sont partis finalement, l'autre a eu un accident. On a actuellement les meilleurs arbitres africains. Le Sénégal est en train de former les meilleurs arbitres africains. Et je n'extrapole pas. Et pour cette calme, comment vous voyez le niveau de l'arbitrage dépasse de très loin le niveau du football. Ce pas parce qu'il y a un fait ou bien un cas qu'on va négativiser. Non. Le niveau de l'arbitrage africain dépasse de très loin le niveau du football africain. c'est la passion. On est tous des fous de fous. Uganganga chingambochi. Uganganga chingambochi. Uganganga chingambochi. On est tous des fous de fous. Uganganga chingambochi. Uganganga chingambochi. Utalanguma viri chapara chupamanda mama mama bat bomba dati. Hey. Eh, eh. Euh, Ousmane Fall, arbitre international, qui parlait un peu, hein, qui faisait un peu le bilan de l'arbitrage. On a vu que ce soir, euh, Monsieur Gassama a hautement représenté euh, la Gambie et donc accessoirement le Sénégal. Alors bëggoon naa xam aussi yéen lan ngeen gisee euh, arbitrage bi ci Coupe d'Afrique bi est-ce que am na ay amélioration baax na ñu ngi ci yoon bu baax bi. Ah, bu baax baax. parce que soo xoolee yeneen euh, Coupe d'Afrique yi ñu doon seetaan avant ak yeneen erreurs yi ñu si doon gis ren jii nii euh, foog naa ni erreur yi bëriwul. Mhm. su amee benn erreur def naa ne si ñëpp jàpp mooy erreur arbitre mauricien bi contre euh, Guinée Guinée équatoriale. Mhm. ak Tunisie. Mhm. def naa ni foofu la erreur boobu la nit yëpp jàpp. naa ni que amul erreur yoo xam ni que ay erreur monumentale yoo xam ne mun nañ ko gis nañ ko si si si kan bi tey. donc yu ngande daal. waaw donc mën nañu wax ni que arbitrage mu ngi si yoon bu baax. mun nañu continuer nii suñ continuer nii incha allah comme euh, nu ko Amara waxee sànq d'ici quelques années mun nañu gis. li euh, final coupe du monde coupe du monde africain Kiro. alors euh, Mamadou. waaw mooy comme ni ma waxee rek parce que man loolu laa njëkk a constaté tey ah, parce que man arbitre bi j'étais surpris quoi. parce que pourquoi dama surpris parce que damay gis ne match bi am na tension mais toujours day arrivé calmer mm-hmm. jour yi. Mm-hmm. donc am na carton yoo xam ne bu ko joxoon daf lay wóor ne match tey day am carton rouge te bu amoon carton rouge da doon yàq match bi. Mm-hmm. ku si amoon rouge rek da lay yàqal sa mais vraiment dama gis ne da ko maîtriser carrément c'est dommage que match contre Tunisie bi comme ni ñu koy waxee donc euh, arbitre boobu donc xaw na ne tuuti mais quand am na lu mu xaw a yàq un peu si image yu Afrique quoi mais yàq aussi image yu Afrique que loolu moo indi euh, problème yu bari yoo xam ne peut-être Coupe d'Afrique bu ñu ci retenir loo xam ne lu si gën a bon loolu la ñuy gën a tout à fait pourtant li reetaan lu mooy waa RTI dañ doon def euh, commentaire match bi ñu ne c'est un arbitrage catastrophique <laughs> parce que j'imagine que parce que les décisions n'étaient pas en faveur des Ivoiriens heureusement que bon la Côte d'Ivoire euh, a gagné alors euh, ñu wax ci aussi bilan de manière générale Coupe d'Afrique bi niveau de jeu bi nan ngeen ko gisee coach Amara waaw mais ni ñu ko gisee mooy niveau bu niveau bu élevé la parce que quand même parce que li euh, ñu ko li tax li ko firndeel mooy euh, Coupe d'Afrique boo xool mooy rare Coupe d'Afrique bi nga xam ni euh, benn match rek moo dem penalty muy final bi et gis nañ ci aussi ci jàngat bi mooy tirage bi d'abord damay commencer tirage bi. Mhm. tirage dafa dafa ma dafa équilibré wu dañu xool poule A. ak poule B dafa am genre équipe yu fa ne am poule C ak poule D yenn équipe c'est-à-dire que les équipes supposées plus fortes en Afrique fa ñu dajee. Mhm. moo tax si jàngat boo gisee mooy coupe d'Afrique bi nga xam ni euh, dem nañu ba troisième tour. Euh, cest à que troisième match amul benn équipe bu ñu éliminé. dafa foofu déséquilibre dafa génn. Mhm. léegi bi muy génnee bi ñu ñëwee à partir de maintenant huitième de finale gis na équilibre bi commencé waat na ñëw boo xoolee ci à partir de huitième Euh, nga gis en général match huitième de finale day serré. Mhm. dafa day dem ba penalty mais huitième de bi bi nga gis bi nga gis ni ay 3-0 nga doon gis 3-1 mooy c'est-à-dire que déséquilibre ba amoon euh, euh, moo ñëw moo commencé équilibré moo andi Guinée comment ça s'appelle Ghana gagné 3-0. Mhm. contre comment ça s'appelle Guinée ak am na Côte d'Ivoire aussi. ah door na Algérie 3 donc voilà ah. donc dafa équilibré. Mhm. et puis gis nañu am na bii yu bëri. am na bi yu bare donc euh, euh, gis nañu aussi euh, tactiquement quand même les joueurs comme ni ko Cheikh doon waxee léegi gis nañ que les les joueurs se sont hissés. Mhm. et man nag j'ai une sympathie vraiment j'ai une sympathie particulière pour l'équipe de la RDC parce que ni ñu mën a ni ñu ko ni ñu ko mën a jàngate mooy. ñoom rek ñoo équipe bi nga xam ni ñoo wax ne typiquement football africain quoi. Ah, ci ci ci ah ci ci ci ci spectacle ci ci ci geste technique mais aussi euh, wane euh, euh, football africain à l'ancienne c'est-à-dire que. Mm. ci tactiquement pas pas pas structuré. pas voilà. d'accord très bien alors le bilan au niveau du jeu tu as eu presque raison. nee nga équipe euh, bon tu avais dit que certainement ñi jugee ci poul C bi dinañ dem ba finale il t'a manqué juste deux tirs au but pour nga am tout à fait raison Ghana la. Mhm. mais Ghana perte na finale bi mais en fait c'était les deux poules les plus relevées ñoo retrouvé wu en fait en finale. Mhm. poule C ak poule D. parce que xam nga boo xoolee Fatou man foofu dama ne ñiy génn foofu dañuy dem finale. mais je dis pas que exemple dañuy gagner finale bi mais je sais que li ma mën retenir ci Coupe Euh, comme ni ko Amara waxee Coupe d'Afrique bu relevé la. mais mhm. aussi euh, comme ñun Sénégal nañ def attention que ne malgré que ñun toog nañ yor nañ équipe aussi mais nañu xalaat ne Coupe d'Afrique prochaine mooy gën a metti. parce que li tax ma ne mooy gën a metti parce que da ngay xool Coupe d'Afrique bi ni mu bindoo. Mhm. mooy ça veut dire équipe yi dañuy gën a avancer. cest à yow sa équipe tey boo yaakaan tey sa équipe bi déwén wala d'ici deux ans mun nga liggéey équipe bu liggéey bi mun nga équipe mun na am solidarité mun na nekk équipe bu mag tamit calculer ni aussi tamit. Mm-hmm. jour équipe yooyu tamit parce que lu mel ni Côte d'Ivoire daf lay wóor ne ay ñaar ñett ñoo si ñoo si bàyyi donc ñii déjà am nañ benn expérience bi nga dem. Mm-hmm. nga dem comme ay Algérie foo ko tudd rek ba Guinée bi ngay tudd sax. Mm-hmm. da ngay xool ne dafa nekk championnat boo xam dafa relever fi ñu nekk cest à man li ma gën a retenir moo lay wóor ne les deux ans yi di ñëw. dana dina nekk coupe d'Afrique boo xam ne dafay gën a métti et ça c'est très important tout à fait en tout cas man de jooyu ayu yi man ñoo ma gën a marke si kan bi <laughs> vraiment euh, jom bu mu wane moom vraiment vraiment bu joueur yëpp meloon nii kii ni muy joxe si terrain bi di yéeg di wàcc moom ak Serge Aurier tey ci match bi mu koy bu ñëpp meloon ni kii moom xëy na dinañ mën a dem fu sori bon on va tirer le bilan donc <laughs> on va tirer le bilan quand de la CAN avec euh, les anciennes euh, gloires qui donc <laughs> qu'on a rencontré ce matin au stade Demba Diop sur le plan technique euh, d'ailleurs les équipes les plus compétitives sont celles qui sont en finale suivons ce reportage de Mamadou Ndiaye le niveau de jeu jugé décevant pour certaines anciennes gloires Non, le niveau est bon. Hein? Bon, surtout pour certaines équipes. Je parlerai de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Sur le plan du jeu, je n'ai pas été impressionné hein, par ce que j'ai vu à la Cannes. Aucune, aucune équipe ne m'a impressionné, aucune sélection ne m'a impressionné. Parce que j'ai l'habitude de voir presque tous les week-ends des équipes jouer. Donc c'est totalement différent. Donc sur le plan du jeu, on, on Je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Par contre, sur le plan fighting, spirituel. C'est ça qu'il fallait. On se donne. C'est ce que fait la Côte d'Ivoire. Pour d'autres, le niveau est acceptable. Le niveau de jeu par rapport à la dernière canne, ça c'est vrai, ça s'est hissé un petit peu. Ouais, parce que euh, je assistais à une canne, euh, sachant que Au départ, il n'y avait même pas de favoris, donc pour te dire que le jeu était tellement bon. Euh, surtout la poule euh, D, euh, de la Côte d'Ivoire et le Cameroun, Guinée, Mali, sortir du beau football. Donc euh, cette canne, ça a été une réussite sur le plan jeu. Là, les, vraiment, les techniciens ils étaient à, à la hauteur de cette canne. Une finale aux allures de duel entre frères Ayou et Touré qui s'annonce palpitante. C'est extraordinaire d'être en équipe nationale, de jouer avec son frangin. C'est une finale inédite, mais le plus beau, c'est de se retrouver en finale. Moi, j'aimerais bien aimer avoir un grand frère qui jouait, à, qui, qui, qui jouait à mes côtés ou bien un autre club et qu'on se retrouve en équipe nationale. Ben non, mais c'était quelque chose de plus, c'était une double motivation. Donc. Je les aime bien, je les aime jouer, mais le, le plus jeune devait apprendre à être un peu plus calme, un peu plus propre derrière. Le plus jeune de deux. Oui, le plus jeune. Euh, Jordan devait faire un peu plus tempéré. jouer au football, il faut qu'il arrête de rouspéter dans un terrain, de tout parler. C'est peut-être un peu sur ce côté. Ça, on ne le voit pas du côté des frères euh, un peu. Ils sont bons, <laughs> mais ils ne sont pas du même niveau que leur papa que j'ai vu jouer. Où ce sera la famille Ah la famille à gagner la Coupe le remake de la finale de 1992 à Dakar où la Côte d'Ivoire, amenée par Alain Guamene, avait remporté le trophée par une séance de tir au but.

comme exemple tey mun nga jur ay doom mais ñoom ñaar munu yem caractère boo xoolee ayu déjà moo ko gën a dal donc ci terrain bi moo ko gën a joxe énergie moo ko ëpp expérience parce que boo ko dugalee mu football même bu fekkee dix minutes nga dugal du wane mer du wane dara day wane ne dix minutes yi dama si rey sam bopp par rapport ak frère am day bëgg tout le temps boo ko dugalee dafa xaw a mer et tout ça. Mhm. mais aussi tamit euh, foog ñu xam euh, il faut que ñu féliciter leen parce que aussi tamit seen papa am na loo xam ne c'est pas donné pour tout le monde aussi parce que tey nga am ñaari nekk international ghanéen am ñaari doom ñu def comme yow li nga def aussi tamit loolu sant yàlla la. très bien ah. mhm. mais mais maam yaa yaa pour renforcer surtout si côté boobu quoi sur les frères là il y a quelqu'un quand même qu'il faut qu'il faut tirer un chapeau qu'il faut féliciter c'est Kolo Touré. c'est quelqu'un qu'on avait tué. Mhm. Euh, qu'on, qui n'existait plus. et, et, ki est venu en ancien, ouais. mais qui a, été, qui a retrouvé une seconde jeunesse ouais, ça, le, le, le, à jouer sur le plan défensif de cette équipe-là, mm. qui a mm. le, tempo. Ça veut dire que le mot foofu mooy mag dafa baax ci équipe. Mm-hmm. gis nga des fois des fois dañu rey suñu le joueurs yi fii naan mag la ñu ay de mais gis nga mag mag dafa baax ci kër mag dafa baax ci gis nañ ko non non c'est gis nañ ko aujourd'hui dans la autour de la défense de cette mm-hmm. équipe ivoirienne. Mm-hmm. am na ku leen magal taxaw. di di di situation chaude yëpp et bu ñu fàttee bu ñu fàttee ko Sénégal Côte d'Ivoire les deux confrontations. Mhm. mais on a vu un Touré pratiquement en difficulté. Mhm. mais là on a vu un Touré requinqué parce que peut-être wenn entraîneur bu ko jox chance am. bu ko bu ko bu ko ko euh, jox ko comment ça s'appelle chance am et ni jàngat bi mooy que mag dafa baax ci équipe. tout à fait damay rejoindre Amara. c'est du si benn match du si ñaari c'est durant toute la CAN. la CAN il a été tout man mm-hmm. surtout lu mu lan laa gën a remarqué tey jii nii durant prolongation am na benn action bu Jordan Dóobu kii mm-hmm. mu coupé ko mais man dañuy gis kanam tu sens même pas qu'il est fatigué. il était là présent. et que tey jii ni mu luñ ko indi lu naa defoon ba woo wooluwaat ko si équipe bi mm. je pense que wane na ko donc euh, Everena war na ko remercier bu baax ba pare dafa équipe bi dafa équilibré ko parce que bu dee équipe bu équilibré parce que par rapport ak Ghana tu sais Ghana dañu am ay jeunes de trop quoi par rapport ak équipe bu Côte d'Ivoire bi mooy soom sànq li ñu doon wax noonu da ngay xool équipe bu Côte d'Ivoire bi am na ay mag mais am na ay jeunes. Mm. léegi souvent boo xoolee jeunes yi ñooy def. plus que d'effort pour mag ñi. Mm. parce que football tamit dafa dafa am solo nga am ñu am expérience. Mm. am ñu manqué tuuti expérience parce que dafa am ñoo xam ne dañuy am fugu ñooñu ñooy mottali ñi nga xam ne dañuy gérer seen xel parce que ki nga xam ne day gérer xelam des fois am na yenn effort yoo xam ne yow yaa koy defal moom mu mottali la li nga manqué et loolu dafa am importance aussi très bien alors en parlant des gens qui ont été appelés ñoom ñëwaatuñu bon y a eu le cas Didier Drogba le cas Zokora bon on va dire que euh, très trivialement que euh, seen mais il faut tamit ñu taxaw un si li coach Sank doon wax mooy euh, Renard et aussi une part de chance hein. mais Hervé Renard je pense que si biir compétition bi même le trouver système de jeu am puisqu'il y a eu un mhm. blessé je crois Tioté ou euh, Gervinho en fait ça lui a ça l'a obligé à revoir son système et puis finalement il a trouvé la bonne formule et puis aussi je pense que le discours aussi y est discours bi parce que nee woon na après demi-finale bi de toute façon man du ma savourer tant que gagné wuñu titre bi non mais en plus dana danañ xool euh, c' est à partir du quart de finale yi ba quali Côte d'Ivoire qualifié quart de finale yi dernier dernier match troisième tour bi si la ko wax ne la la compétition commence maintenant. Mm-hmm. donc moom xamoon na fu mu jëm. xamoon na fu mu jëm il s'est préparé en conséquence xam fu mu jëm il a préparé l'équipe pour que mu monter en puissance à partir des quarts de finale donc euh, xam na fu mu jëm liggéey na ko et aujourd'hui il a raison sur tout le monde bien que au tout début il y a eu des bisbilles entre moom ak euh, fédération ivoirienne mm-hmm. c'était pas le, le grand amour mm-hmm. am nañu ay xuloo ay jàppal baay et tout affaire mais moom il a continué si yoonam bu mu tracé woon yoon boobu wàccu si te tey jii nii il a raison. Mhm. et que il a su tenir le bon discours si joueur yi il a su rappeler des anciens yoo xam ne que yaakaaroon si ñoom indi lu mu yaakaaroon ko ko peut-être que on on on déplore l'absence de Didier Drogba parce que wóolu na ko Drogba mhm. et tey jii nii xam naa ni moom moo am ay regrets moom moo am lu ko et je me dis que. tey jii nii il a fait un exploit. mais Ivoiriens yi souvent dañu doon wax Drogba jigu leen tey dafa ni dinañ ko gën a wax. ils <laughs> mais c'est vrai c'est un question question jig mais je pense que euh, même Drogba je pense envoyé na benn benn tweet à à à la sélection. Mm. en disant que bon bëggoon na fi nekk fii peut-être lool la loolu décidé mais absence am dana leen libéré. ça c'est très important. absence am autorisation de libérer tu sais à euh, jour yoo xam ne dañuy étouffer. étouffer dañuy étouffer le le le le collectif. c'est-à-dire que de parce que xam nga xam nga boo amee nekk jour bu bu sollicité médiatique. Mm-hmm. et de suite. tout à fait les gens sont frustrés quand bu média yi chaque fois on ne tombe chaque fois il en fait. est-ce que il leur fait de l'ombre de de l'ombre un peu et ça il duñ ko wax. mais quelque part c' est. si euh, euh, dañ koy dañ mhm. mais nag donc je pense que euh, Dóorogba ñëw moom même moom sax wax na ko ah. ci bi ñëw bi mu mënee ñëw. nee na dana permettre seen jeune frère dana libérer. Mhm. pour ñu écrire seen propre histoire. mais vraiment bëggoon na fi nekk trop mais lii la la. loolu la <laughs> yàlla dogal mais Mamadou dama la bëggoon quand même mhm. laaj parce que Drogba nekkatu fi ñu am benn capitaine bu tudd Yaya Touré c'est vrai que tey Côte d'Ivoire gagné na bon y eu un parcours. mais est-ce que Yaya Touré vraiment à pesé dans le jeu ivoirien. Euh, pesé mun naa ne waaw parce que aussi ti faatu xam nga tey bu ñu xoolee lan moo si ëpp importance tey xam nga tey mun nga ji jour boo xam ne mun na peser si équipe ba pare fi ñuy jëm duñ fa àgg. mais quand boo xoolee équipe bu Côte d'Ivoire bi ñoom fi ñu opté woon pour dem àgg nañ fa mais aussi bu ñu xoolee Yaya aussi tamit par rapport ak boo ko xoolee euh, équipe bi muy football capacité yi mu doon wane foofu mais wanewu ko fii mais certes da ngay xam ne comme ni ma la ko waxee football africain et football européen c'est deux matchs différents aussi. Mmh. aussi il faut calculer Yaya Touré tey jii mu si presque fin de carrière am. donc effort yi mu doon mun def dootu ko mun a defati donc actuellement boo xoolee des jeux te pratiquement man ne naa sax def na effort parce que voit Yaya Touré buy daanu. Yaya Touré buy tacler. donc comme ni ko Amara waxee Drogba da ko libéré parce que ñoom ñaar même bu ñu nekkoon ci équipe bi dafa mel ni ñaari kuy yu fa nekkoon da doon am ay certain clan ah. donc ça dit ne il fallait kenn na dem. te je pense que Drogba il a bien fait mu dem libéré pour Yaya Touré nekk fa Yaya Touré tamit je pense que il a montré vraiment comme un capitaine d'équipe boo xam ne bu am importance parce que aujourd'hui tey loo mën a retenir. Mhm. fii ak dix ans ou vingt ans Yaya Touré tey su jël na Coupe d'Afrique et c'est ça qui euh, de la CAN tout à fait alors merci messieurs euh, je vais vous demander de vous euh, adonner un exercice commenter le top 5 des meilleurs buts de la Cannes. Alors, ce sont les internautes de notre page Facebook qui ont fait leur choix. Euh, si on veut bien mettre euh, les images, je vais demander à chacun d'entre vous. Voilà, donc cinquième. Donc il une nouvelle progression. L'égalisation Ça fait deux buts le rappelle, les Congolais de de colère. à deux buts partout et pourtant la avait fait l'arrêt dans un premier temps euh, Mafumbi mais là il ne peut rien sur cette frappe puissante pied gauche qui va se poser sous la lucarne. C'est surtout la vitesse d'exécution dans cette frappe, contrôle tout de suite et puis on va dire que c'est quand mérité. Hein. Cette euh, de balle, de Marcel Encradé mmh. Salem Gradel qui frappe pour la deuxième fois. Ouverture du score pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants font la course devant. Contre le cours du jeu, certes, mais ce but-là est magnifique. Ce but-là va peut-être compter durablement. Imparable pour, euh, pour Regardez, c'est Petite glissade, malheureusement. L'intervention de Guillota est manquée. Derrière, ne se pose pas de questions. C'est là Guillotin malheureusement, il n'est pas sur ses appuis surtout euh, il pas agressif. Incroyable cette frappe. Et la frappe elle est lourde, elle est puissante. On doit être au court malheureusement. Ah, magnifique, c'est gestes de spontanéité de la part de Gradel, il se pose pas de questions, il a vraiment voilà, il a envie de marquer ce but. C'est effectué, mais vous dans la surface de réparation, c'est toujours un danger. Yaya Touré critique. Le capitaine ivoirien, il répond après 21 minutes. Qui a été déterminante pour que Yaya puisse mettre cette frappe d'une pureté impensable. Regardez, déjà il y a une erreur de, de Kimwaki de laisser se retourner euh, Wilfried Bonny. Mais quelle puissance, quel équilibre dans cette frappe. Regardez ça. Le pied d'appui est bien placé. Coup de pied. Quel missile de Yaya Et je peux vous garantir que ce geste n'est pas facile à réaliser quand ce ballon revient comme ça en une touche. Mais lui a le talent, la puissance pour le faire. le genou. Et Le pied gauche. Ouh là, frappé directement. Oh quel but Exceptionnel battu par le geste incroyable d'Atsu. C'est le but du tournoi Christian Atsu qui trouve la lucarne opposée. La danse du Ghana qui est en demi-finale presque. Semble-t-il le ballon est allé euh, lober Nabi euh, Yatara. Ça peut surprendre, c'est vrai. Mais Atsu, l'a fait, en tout avec vraiment de la clairvoyance et a inscrit un superbe but comme vous Certainement le but du tournoi, il est pratiquement au point de, corner, il enroule ce ballon. le cherche. Déjà, c'est une faute défensive parce qu'il ne doit pas avoir l'aisance pour aller frapper ce ballon. Et après, il lobe parfaitement Yatara. Allez, on va dire qu'il a fait esprit. En tout cas, quel superbe but pour l'attaquant des Black Stars du Ghana. Il manque un peu de jump. Ayatara. Alors messieurs, est-ce que vous vous retrouvez dans ce top 5 des meilleurs buts de la Cannes ce sont les internautes qui ont fait leur choix. On leur a donné bien sûr un panel. Est-ce que ça vous paraît... Euh, oui, voilà. c'est tout à fait normal. J'ai rien à dire. <laughs> D'accord, Momodou Moi aussi. Mais moi aussi, je me retrouve. Ils ne se sont pas trompés. Hein. <laughs> Merci les internautes donc de la page Facebook. Euh, alors, ñu wax aussi un peu pour jeexal balaa ñuy dem si insolite yi ñu wax aussi si jàngat yi parce que sànq dafa am auditeur boo xamante ni bon kii mooy Gervinho Gervinho tiréwul penalty <laughs> seetaanul penalty et puis j'ai remarqué d'ailleurs avant de rebondir j'ai remarqué en fait bu muy des deux minutes pour ñu commencer tirer penalty yi coach yi commencé génne a Gyan il avait promis à sa mère que dootul tirer ti penalty pour Ghana je je je je raconte une anecdote Bocandé en en en comment ça s'appelle en en au Zaïre c'est c'est c'est c'est à la Zaïre. Mhm. c'est quoi c'est quoi en en en Sénégal Zaïre c'est quoi je je pense en 87. Il avait raté le penalty euh, au Caire 86. Après il a il a marqué il a on a perdu aussi au penalty il a il a tiré je me rappelle il était homologué dans la chambre. Mhm. man ak moom ñoo jëloon woon néeg man ak Amoros ak. Omar Gueye Sène bokkaan ñoo jëndoo ne 87. Zaïre mais bi ñu traité penalty bi dafa ñoo tëdd ci dafa ñoo tëdd ci couloir bi di jooy. bokkaan équipe la de ah. Mm. naan ah, la bul dóor penalty sama yaay waxoon la bul dóor penalty non dire que c'est vrai ça loin. donc c'est et il y a le même Gervinho Gervinho aussi. il a raté je pense en. en 2012 en 2012 2012 ah. c'était euh, à c'est très dur man honnêtement. Euh, bëgguma di saan penalty bu accès fii xam nga mhm. parce que un penalty fait toujours un malheureux. Mhm. parmi les joueurs. tout à fait moo tax man je voulais que ñu bàyyi bi en or bi quoi. ah d' accord ok très bien donc euh, gis nañu changement yi bon là c' est peut être moins grave pour le Ghana parce que un gardien à la limite. il n'est pas fait pour tirer des pénalties, il rate. Bon, peut-être que les gens ne vont pas trop lui en tenir rigueur, en fait. Ah mais c'est sûr euh, même pas gardien sax même joueur de même joueur de champ tamit su raté il faut pas lui tenir rigueur parce que penalty lu ñu wax lu l'autorité en plus euh, y a tellement pression bi dafa rëy ba nga xam ni que le temps lay jug pour dem ba egg si ballon bi di ko teg pou lu bëri mun a wàññeeku si yow donc euh, ku jug déjà pour jël jël responsabilité pour dem dóor pénalité rek war nañ ko wax bravo parce que c'est pas du tout évident c'est pas du tout facile joueurs yu football yu bëri suñu eggee à ce moment précis dóor pénalité ñu bëri dañuy rocceeku ñu mhm. bëri dañuy daw dañuy ñaan yàlla bu ñu egsi si man dañuy <laughs> ñaan yàlla bu ñu egsi si uh-huh. lourd dafa diis <laughs> donc ku jug pour dem dóor ko dafa dem ko il a fait son son mhm. maximum et nañu xalaat ni Mamadou Diallo euh, balaa match bi di commencer am na ñu boole leen ñu comme ça ñeneen ñi dugg parce que gis nañ ni en fait les deux entraîneurs ont fait les mêmes choix génne Gervinho génne Asamoah Gyan dugal yeneen ñaari joueurs ça c' est des choses qu'on ce sont des choses qu'on prépare. parce que des fois xam nga da ngay xool ne da ngay ñëw si match mais daf lay wóor ne des fois di nga xam ne ñii duñu ay tireur. Mm-hmm. donc souvent entraîneur mun na xam ne ñii du ñii duñuy tireur mu des une minute ou deux minutes de jeu mu génne leen mais ni ko ni ñu ko waxee que tamit euh, ghanéen bi bu fekkee ne yaayam daf ko ne bu laal ci penalty bi évident ñëpp xam loolu normal aussi tamit moment boobu entraîneur bi xam na ne du dóor mu génnee ko man li ma mënul nangu si penalty yi mooy euh, comme exemple dañ naan penalty yi kii koy dóor moo koy rate mhm. donc aussi tamit na nit ñi xam ne bu nit jëlee penalty yi di koy dóor dafa am volonté pour dugal ko li ma kon a contre si penalty yi mooy que nga ñëw sa ten parce dafa am ay manière saa à dire ne am na certaine manière yoo xam ne boo ko dóoree public bi du la ko mën a pardonné mm. et normalement dañ la ko war a pardonné mais mënuñu la ko pardonné mais am na certaine manière yoo xam ne boo ñëwee dóor ko même boo ko ratee si dara quoi mm. am na certaine pénalité aussi tamit nga xam ne lii peuple bi si yow lañ yaakaar mais nga teg sa fulla boo dóoree même bu génnee sax amul problème aussi tamit quoi des fois problème yooyu mooy am certaine ñi ngay ratee pénalité yi des fois noonu la peuple di jege sax mais man je pense que tey bu pénalité amee peuple bi waruñu si am lu ñu si kii de trop parce que fi ñu toog noonu dañuy désigner ko dóor ñu bari ñooy daw res. Mm-hmm. ñun ñëpp ay footballeur lañ. penalty day am kenn du nangu jël penalty pour dóor. léegi <laughs> ñi ko jël am volonté bàyyi leen ñu dóor ko bu ñu ko ratee ñu xam ne loolu la mais aussi tamit manière bi c'est important. tout à fait merci Mamadou Diallo alors euh, ce que je propose Pierre c'est que ñu def une petite pause musicale balaa ñoo ñëw ci insolites yi euh, moom la ñuy mujjee. Amara Cher Sidi ak euh, Mamadou on va terminer par euh, certaines images insolites euh, yoo xam ne aussi suñu internautes yi posté nañ ñu ko suñu page bi bi ñuy commencé ki ñu ko yónnee mooy Seydina si Sissoko moom nag image am dinañ ko gis ci kanam keneen ki mooy Serge Aurier moom défenseur ivoirien bi nga xamante ni dafa xaar ba match bi contre Côte d'Ivoire Algérie commencé. mu soog a dugg mu nekk dafa jaxase woon mayoom ak beneen mayo jàmbur donc euh, il est rentré sur le terrain deux minutes après le démarrage donc euh, de la deuxième mi-temps et ci deux minutes yooyu d'ailleurs euh, les Ivoiriens ont souffert Donc après mu ne bon il aurait regretté que justement euh, que la Côte d'Ivoire puisse encaisser un but euh, dans cette situation et puis euh, Hervé Renard moo doon aussi raconté anecdote boobu kooku mooy Serge Aurier il a été aussi auteur d'une grande compétition euh, au sein de la défense donc euh, ivoirienne kooku benn euh, internaute moo ñu defal donc la remarque beneen insolite bi aussi j'espère mooy bu boobu moom bonus la Euh, suñu benn invité ku toog si table bi bon temps yi muy joué <laughs> match <laughs> on est en 97 donc mu dugal benn but euh, club portugais bu Lisbonne xool leen teg <laughs> fecc bi fecc bi xaar leen xaar léegi nag nañu regarder fecc bi fecc bi. mais bii ban la. léegi nag coach dañ la bëggoon laaj bi ndax ndaw rabbi na. c'était quoi exactement. di de mën moo xam quoi ala ubbi du ak njaay. donc euh, voilà. coach bi moom. non non non tu m'as <laughs> donc euh, waaw kii kan nga doon jàngal fecc <coughs> c'est un brésilien. Ah. c'est un bon tireur <laughs> oh, <laughs> très bien ok alors commentaire de. Cher Sidi ak mais bii bal grand. non ça c'est c'est Ndawra Bin la. xam nga temps yi Fallou Dieng moo xewoon euh, kii bi comment ça s'appelle Indomie non mais taxaw bi moo gaaw quoi non là tu m'as eu un pas un petit pas et puis voilà et puis ñu dellu siwaat bon moom la ñu waroon mujjee malheureusement bon ak réalisation bi ñu ñëwaat ci kaaw ki nga xam ne euh, c'est un joueur congolais hein qui Seydina Pathé Sissoko internaute moo ñu ko yónnee donc si page bi donc mu wan ñu image yu benn euh, joueur congolais kooku RDC la nekk il s'appelle Gabriel Zakwani bon on va bientôt découvrir les images moom de dafa blessé donc ñuy xaar bon il est là en train de se de se plaindre un peu de ce qui se passe et tout donc arbitre bi woo euh, bah, le service médical quoi donc ñuy xaarandi euh, voiturette bi ñëw donc on va patienter un peu mu ngi toog di xaar donc ñi ñoo ñëkk ñëw indi seen genre civière je pense bien. Mhm, civière bi. voilà ñu indi civière bi donc Gabriel mi ngi xaar xoolal xoolal xoolal oto bi. Ah, ah, oto bi laal na ko. mais da ko gën a blessé xanaa. <laughs> voilà daf ko gën a daf ko gën a blessé. ko gën a blessé ah. mu dimbali ko mu gën ko blessé. Euh, on va finir quand même euh, émission euh, par une note sur le Sénégal c'est vrai que ni euh, tey Ghana gagné na euh, non Côte d'Ivoire gagné na au tir au but Ghana mi nga xam ne dooroon nañ ko bon ci match premier tour bi nekk yegg si finale mais fi ma bëggoon jeexalee mooy ñun dañuy dem à chaque fois compétition def nañu plusieurs compétitions on est parti on est revenu on reste sur des échecs quand même répétés tey lan moo war a nekk suñu taxawaay pour que ëllëg en 2017 par exemple qu'on ne connaisse pas la même mésaventure ah, déjà déjà ne pas briser ce, cette équipe ce groupe qui est là ce groupe euh, qui vient de naître euh, donc ne pas le briser et que continuer sur euh, avec les mêmes hommes et euh, actuellement on n'a pas d'entraîneur Gaawant aussi parce que les dates FIFA arrivent au mois de mars gaawante si wut entraîneur parce que je pense que ils ont le temps de penser à tout cela donc il faut il faudra pas attendre longtemps pour euh, un choix d'un entraîneur je pense que le les hommes sont là il faut choisir un entraîneur le plus rapidement possible et que xam fan la ñu jëm et que ñu bàyyi tâtonnement bi ñu bàyyi tâtonnement bi xam ni que euh, Côte d'Ivoire jaar nañu fii plusieurs années ñi def ay échec échec échec mais ils ont continué à travailler mmh. continuer et que ils sont allés chercher l'entraîneur qui les boo xam ne moo moo tax ñu gagné tey ñun nag def naa ne si yoon boobu la ñu war a tegu de euh, bàyyi politique euh, événement événementiel bu ñu def à chaque fois xaar ba événement egg si. ñu mm-hmm. génn on sort les gros moyens. Mm -hmm. je pense est temps que qu'on qu'on qu'on s'y attelle dès dès dès à présent bañ a perdre temps. Mm-hmm. et que xam ni que euh, les mois n'attendent pas affaire yi mm-hmm. dafay gaaw. et puis que surtout bañ a briser man groupe bi loolu man surtout si loolu laay gën a appesantir. Mhm. briser groupe bi le groupe est là jéem ko renforcer. parce que y a des certains certains postes certains xam ne que manqué na man am nañu fa ay manquants. jéem a combler postes yooyu. Mhm. et que ñu am entraîneur bu baax boo xam ne que ça soit étranger ou local. man même ça m'importe peu naa ni débat bi nekkul foofu. e bien que il faut trouver l'homme l'homme tu sais que Fatou man li may wax foofu mooy d'abord euh, benn. boo mhm. waxee ñu damay sànni ay xeex. ci sais que man je man li ma xam laay wax. Mhm. football laay wax moom laa dund moom laay véti. Mhm. man tey ni may wax tey amul kenn ku ma amal xaar ma yàlla. ku ko amax man dëkk yow loolu yow sa business la. Mhm. mais du trait bu ma toogee ci télé bi damay xool lii jëm Sénégal avancé Sénégal ak li koy av li koy yóbbu kanam parce lu ñu def ci terrain bi la. Mhm. man li ma mun a wax il faut pas que ñu comparer tey suñu bopp ay Côte d'Ivoire walla ay Ghana. Mhm. xam nga dañuy wax ne. nañ xool si Côte d'Ivoire ak mais xam a Côte d'Ivoire ak Ghana chaque échéance dañuy ñëw ba ay demi finale mhm. ba ay finale mhm. ñooñu même bu ñu jëlee coupe bi ñooñu c'est ay exemplaires lañ. mais ñun Sénégal tey dañuy xool ne ay premier tour ngay toog wala deuxième tour ngay àgg te donc depuis 2000 àggatu demuñu final. Mhm. depuis mille pratiquement xaw ma ban année gëj ngeen qualifié premier tour léegi nag il faut que ñu xool. 2006 il faut ñu xool lu baax li ñu tekk man jour yi waxatuma leen. entraîneurs yi aussi tamit waxuma leen parce que tamit dafa yomb trop. bu problème amee rek ñu teg ko entraîneur bi dax entraîneur bi. nañu xoolaat lii baaxul man dama koy wax ci télé bi. fédération bi nañ xool ñi lii baaxul ñi fa baaxul. parce que tamit liggéey boo gis am na ñu baax. am na ñu baaxul. ñi nga xam ne baaxuñu ñu jël leen ñu seppi leen mais indi ñi nga xam ne ñoo baax. aussi tamit may wax Issaoui Senghor mu def la leneen si boppam na jël ñoo xam ne ñi dañu xam football mu teg leen si côté am parce que aussi tamit boo jëlee ñu xam football nga teg ko sa côté. dina la mun a apporter lu bari. mais bu fekkee ne yow xamu jëloo ñu xam football nga tegoo ko sa côté mais da ngay indil sa bopp problème. Mm-hmm. c'est quelqu'un de bien. et je l'estime beaucoup mais n'empêche que man bu ma toogee fii damay wax dëgg bi parce que ñun Sénégal moo ñu ñor. très bien coach a wow. plus waaw li ma li ma ciy wax ci loolu. mooy mm. que d'abord euh, premièrement moi je pense que bon c'est vrai que Sénégal yi am nañ euh, am nañ déception métti na. Mm-hmm. mais je pense que bu euh, échec bu 2010 échec mm-hmm. bu 2017. bu ñu ko cest à bu ñu wax sax wax ab fixation si 2017 mooy commencé nañu cause échec. moi pense c'est-à-dire mm-hmm. que il faut pas dire que 2017 dem jëli coupe mais je pense que aujourd'hui Euh, 2017 parce que 2017 am na Coupe d'Afrique. 2018 am na Coupe du monde 2019 am na Coupe d'Afrique chance bi ñu am tey tey malgré que tey éliminé ñu mais vraiment de Sénégal je pense que am nañ chance bu rëy rëy rëy nga chance bi rëy mooy lan mooy que équipe bi demoon bi demoon Guinée équatoriale mujj bi. c'est vrai que xale yu ci ne. te xale yi joué nañu Coupe d'Afrique. ak des équipes de haut niveau Ghana Algérie non Ghana ak euh, ak Afrique Sud mm-hmm. des de haut niveau jël nañ fa expérience boo xam ne bu inestimable boo tax ma ne équipe bi nañ ko nañ ko téye nga buñ ko téye defaraat ko ci campagne 2017 maa ko fi laa koy wax tey RFM non TFM mm-hmm. ci ci parce que coupe d' Afrique la 2018 coupe du monde la ay éliminatoires la ak expérience bi ñu am man je pense que si buñ ko su sur corriger erreur yi man je pense que mën nañu andi coupe d' Afrique mën mën defal ndam mais comment mais parce que par contre même fort tout est s'il te plaît mais comment xam nga xam nga tey euh, Mamadou Diallo wax na ko léegi c'est que aujourd'hui euh, au niveau de la direction technique euh, c'est que fédération maanaam fédération fekk nga fédération gaa yi naan ne fédération démissionnaire moi je pense que du solution xam nga lu solution cest que fédération lu mu am lu am kii mooy obligation de moyens xool ndax fédération euh, joxe na moyens yi nga xam ni pour que équipe bi foofu ngay natt fédération mooy ce qu'on appelle obligation de moyens maintenant c'est au niveau de la DTN bu ñu bu ñu joxee loolu au niveau de la DTN division élite cest dire que fédération day développer football mais fédération management au niveau de la il faut que créer foofu benn division élite boo xam ni. day day day soutenir entraîneur bi fu ti nekk parce que division élite yooyu ñan ñoo koy wër muy entraîneur de haut niveau ñoo nekk ci division élite boobu parce que euh, euh, euh, directeur technique dafa war a activité yi mais boo defee ay 4 cinq entraîneurs yoo xam ne ñu ngi ci division élite bi taxaw ak di di di jokkante ak entraîneur bi fi ne li am contre Afrique Sud du loolu loolu maanaam dootul maa je pense que dootul amati ba pare ah, pour terminer pour terminer am na poste yoo xam ni maam Fatou dañ ko manqué nga ah. mooy seexoon na ko léegi euh. gis nga euh, foog ñu parce que ba tey gó gona kundul ma fi ne gis nga foog ñu wut arrière droit mhm. foog ñu wut ay excentré foog ñu wut numéro 10 mais loolu fekkee amuñu ko sur le plan international nañu nañu wut benn programme local jox entraîneur local local bi fi ne. wala muy def regroupement di lundi jusqu'à vendredi booy dem football. pour xale yooyu jox leen contenu. pour ñu mën a arrêt droit si international ñu war ko monsieur formé leen pour haut niveau c'est ça. merci beaucoup euh, donc euh, tey comme ni ma ko waxee woon c'était la der des der pour euh, CAN je peux pas finir sans remercier évidemment tous les gens qui m'ont accompagné notamment nos consultants je pense Serigne Mboup euh, Cheikh Sidi Mamadou Amara euh, qui ont été parmi donc les plus réguliers tous qui sont passés ici sur le plateau je tiens également à remercier toutes les équipes techniques euh, les deux réalisateurs que sont Vieux Diouf et Pierre Da Silva les caméramans Malik Abdou et donc tous les autres également qui ont participé à, à la prise d'image je tiens également à remercier les preneurs de son que ce soit Mansour Lamine Abdourahmane au niveau de la régie également Tunkara Muntaga la capture d'images. Je remercie les décorateurs, euh, Charles, Bonnie, ils ont toujours tous été là. Les maquilleuses également, Fifi Sambou, euh, Bibi, Yacine et Maman. Euh, Pape Doudou de la production, toujours aussi efficace, et Joséphine également. du côté des programmes, je remercie Madame Diaye qui a diligenté le tout de main de maître. Et puis, je ne peux pas terminer sans remercier évidemment notre directeur, Ndiagandour, mais surtout remercier Mamadou Ndiaye qui m'a beaucoup aidé dans cette production pendant un mois pour les reportages, pour les réseaux sociaux. Vous remerciez vous aussi les internautes pour tout ce que vous avez fait. Devinez que de toutes les pages qui ont parlé de la CAN, nous sommes la quatrième. Donc c'est vraiment extraordinaire. J'espère que vous allez rester avec nous euh, pour euh, Sport à la Une et toutes les émissions sportives qu'il qu y aura donc, sur euh, cette antenne. Je suis vraiment ravie de vous avoir accompagné durant tout ce mois. Excellente soirée et j'espère que la prochaine fois, ce sera le Sénégal qui gagne. Vive le sport, vive TFM, vive le foot africain. Merci messieurs.